wax naa ni jamono ji jamonoy campagne électorale ku nekk ngi wër tabarkal di dugg ko génn di sàkku nit ñi jàppale la damay wax ni sama benn waaye def ma woon waa ah, sëriñ yow dégg guñ la de ma ne ko ci lan noonu mu ne ah élection yaa ngi ñëw Hmm. dëkk bi dina yëngu il faut nga wax il faut nga def message de la paix ma ne ah, message de la paix pour élection yi élection yi jàll yeneen élection yi ngi ñëw ma defaat message de la paix élection yooyu jàll nawetaan ñëw ma sëñ bi defal message de la paix ba kañ benn message day man de moom la am te amaana su ma xosee ba jàllale nan fa élection yi jàllale leneen lu nit mën a sàkku di ko xëcc mu bàyyi ko xel benn message la moo xam ci bëgg jiite maire yi la wala ci bëgg doon député wala ki bëgg doon président ki bëgg doon ministre kii xëccoo suuf kii xëccoo alal ñoom ñépp lay boole benn message dafa am benn waay ju jënd terrain ci jamono sidna aliyun karamallahu wajha bi mu nekkee xalifa waa ji ñëw ci sidna ali ne ko man dama jënd terrain dama bëggoon nga bindal ma benn acte buy wane ne maa moom terrain dafa moom ngeen koy euh, waxee waaw dama bëgg daal nga bindal ma këyit buy wane ne maa moom terrain bi sidna aliyun di déglu waa ci di ko xool sëy naa liw gis ci waa ma ma mi ko xoolee li ñu naan bëtu aynul xikma sëy naa li muy déglu waa di ko xool yëpp sentir na ni waa àdduna dafa farankulaay ci xolam ba pare àdduna dafa dafa dafa dominer bakkenam comme ñi xew rek bëri na lu xew tax bëgg àdduna wallahi Seydina Aliou bëgg sauver waa ji ci bëgg àddunaam yi histoire bu këfin la waa ji këyit gi mu ko tàllal pour Seydina Aliou bindal ko ak Seydina Aliou jël këyit gi xam nga lu mu ko bindal mi ngi ko naan aji dee gi yaa ngi jënd ci kaw aji dee gi kër waaw aji dee gi yaa ngi jënd ci maanaam yow mi nga xam ne dangay jeex yaa ngi jënd kër ci àdduna ji jeex ci réew moo xam ne réewu tooñkat la ci yoon woo xam ne yoonu ñi sàggan ñi la histoire bu yéeme mu wax ko ci lu am solo wax ko itam ni ko loo mën a sàkku sa terrain bi ak nu mu mën a dol toll hectares yi lu ñuy bari bari bari bari bari bari am na ay limite am na ay xuduud am na ñeenti limite yoo xam ne sa alal nu mu mën a toll sa terrain nu mu mën a toll am na limite boo xam ne soo fa àggee rek sa alal joojoog sa terrain yooyu yépp danga koy ñàkk te limite yooyu frontières yooyu nit mënu cee mucc bi ci njëkk Seydina Aliou nee na nekk première limite bi mooy almawt bis bu dee ñëwee nga xam ne li ngay xëccu message boobu laa leen di lu ci waay di mën a xëccu na bàyyi xel dee nañu bàyyi xel dee ci li ñuy xëccoo moo xam nguur la moo xam suuf la moo xam alal la nañu bàyyi xel ni bési ngi ci bési li ngay xëccoo dara du la ci jëriñ si naa li ñu nekk frontière bu njëkk bàngoo nga defe ne fa nga yem xam nga mënoon nga dee rek yam ci si naa li ñu nekk deuxième frontière bi mooy bàmmeel naka waykat bi Bamel bàmmeel mat naa tax a wallahi taala nit ñi lañuy xalaat seen bammel seen tëraayu bammel ci li ñuy wax nama yalla yàlla election su jotté amna ay nit ño xamni ñime wuñ genn ndax ay sacrifice kenn dootu bëgg sa doom sax kenn ci réew mu ne ay ay ay ay ay ay am lu ñu gëm motax li ñuy xëccoo suuf élection ak lu mu ci mën a doon li ñuy wax nit ñi nañ ci sóor deuxième frontière bopp mooy bàmmeel su fa yamoon sax mu neex ci naa lu nekk troisième frontière dina nga war a bàyyi xel mooy alxisaab bés buñ lay atte dërëm par dërëm kaddu par kaddu boo doon wax nit ñi bi suuf jotee suuf seddee la nga daan def di ko liggéey nit ñi pour am li nga bëgg yàlla di la ko tegal ñëpp di gis électeurs yi nga daan nax ñëpp toog yàlla taal écran wam bi ngay tëb ci armée bi suur ngay jël ay nit di sacrifier di sangoo deret yàlla tegal la ko lu ne ko bàyyil xel bés boobu su fa yamoon mu neex ñeenteelu frontière imma ajjana imma safara man de moy sama discours dee bamel ak bis biñ lay atté ak àjjana wala safa motax yow mi nga xamni yaay électeur bi ñu jappalé di la dik rek bayil xel histoire bi may waaj a wala yeen ñaar ñep yow mi jigéen ak yow mi ñu dikk bàyyi leen xel histoire bi maa ngi ko gis ci internet bi am benn góor ci jamonoy sedd bu metti mu ngi nekk ci biti amul fu mu dëkk sedd bi jàpp ko mais mi nga sol yére yu wooye amul yére bu diis mais comme que tàmm na sedd bi mi ngi koy gérer am na benn force mentale boo xam ne may na ko mu ngi gérer ak le de moyens bi mu am gëm na boppam ma ngay gérer seen fi mu koy gérer rek benn milliardaire yom romb ko taxaw nekk waa góor gi seddaay bii ak sa yëre yu woyof yii xanaa amoo yëre bu diis góor gi ne ko ah man de awma yëre bu diis waaye am naa kàttan gu ma dékkoo sedd milliardaire bi ne ko déedéet xoolal bàyyi maa ngi dem kër ga su ma demee seetal la yëre bu diis indil la ko góor bi góor gi ne ko waaw milliardaire bi da dikk góor gi ne ko waaw kontaan xalaat yëre bu diis biñ ko war a indil gis nga dig biñ ko dig ma ngay ma ngay wéeru ci lañ ko dig di gën a bàyyi force mentale bi mu amoon bay gérer sedd bi mi ngi doon gérer boppam gëm boppam mais dig nañ ko te lañ ko dig joxaguñ ko ko de ma ngi koy commencé xalaat léegi milliardaire ba ba mu delloo këram xam nga boroom xaalis suñu delloo ci seen environnement nag nekk ci ay yëfam ba fàtte góor góor gaa ngi koy xaar ba lañ ko dig këk ko dig ba mu duggee këram fàtte na góor ndekati ci guddi gi góor gi bàyyeeku na mu daan def ba gérer sedd bi di xaw a def ay yëf di taal mu ne ah comme que ñu may indil mantu bàyyi ma bañ a weer ci guddi gi góor gi sedd bi jàpp na ko ba am fu mu ko yóbbu ba feebaru ndee song mais góor gi am xelu jël comme que xam na ni day dem mu jël bi jël fëy bind lettre bàyyi ko fi pour milliardaire bi bés bu ñëwee di ko indil manto bi wala même su ko indilul mu fexe ba mu jot ci léegi milliardaire bi fàtt na paa bi de mu xëy suba rek xel mi dem ci góor gi naan man di am na góor gu ma diggoon yëre bu diis xaar ma dem yót ko ko ba mu demee fekk góor gi génn àdduna ñu jox ko lettre bi ko góor gi bàyyil góor gi ma ngi koy wax ca lettre ba naan ko amoon naa kattan force mentale bu ma dékkoo sedd mais ba nga ma diggee la abandonné sama force mental bi kon mënon nga ma bàyyi sama force li ñu bëgg wax ci histoire bi moy yow mi ñu ke le diga gëmal sa bop dama mësa wax ni élection yi su jàllee lendemain élection yi ki nga fal du la jox pas seen kër su amee problème meeru mbaaw wala meeru Cambérène du moom muy ñëw di régler seen problème kon gëm leen seen bopp bu leen benn politicien jaral ngeen bokk li ngeen bokk moo xam famille la moo xam diine la moo xam jàkk la moo xam daayira la benn politicien di dugg seen biir di leen xàjjale yow politicien bi diggee nag donner de l'espoir à quelqu'un qui est au bord du désespoir yaakaar loo ko yaakaaram tas ba pare nga reculer ca lañ ko dig c'est pire qu'un loolu nañu ko bàyyi xel